waa zone 2 bu nit ñoom doon def li nga xam ne ni moom moo di seenub clôture ci lu jëm ci campagne ak café yi nga xam ne ni amal nañu ko mbooleem gox-goxaan yi nga xam ne dafa ñoom na ca Modou Fall Nayda Serigne Abdoulahat Diop ak responsable des femmes soxna Fat Bintou Pouy ak ñeneen nga xam ne boo xam ne ni demoon nañ fa ñoom ñëpp nag daal dinañuy àndandoo def benn ngoon boo xam ne dañu koo dajee fi nga xam ne moom moo di ca Ndindi ngi daal def li nga xam ne moo di bilan bi nga xam ne liggéey nañu ko ngir daal di faar président Macky Sall ngoonuk ñaar fukki fan ak ñeent weeru février ci atum 2019. yéen waa zone 2 ñi nga xamante waa Maka Bari waa Tawfeex waa Kayra waa Kayra waa Mayel waa Bogo waa Daaru Bogo waa Jalla jaratul muy gudd maa mbayeen waa mbayeen ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant yéen it li nga xamante ne moom moo ñu fi dajale tey mooy le 24 daanaka gannaaw suba la léegi nag li nga xamante ne depuis lu mat ñaar fukki fan ñu ngi ciy liggéey dañu war a am fu mu nekk ni résultat te résultat yi ci yéen ñii ko yaakaaree yaakaar bi yaatu na ndax kenn ku ci nekk ci équipe bii ñi nga xamante ne moom dañu àndaloon muy tonton Silla di euh, Alaaji Njaay programme di sëñ Abdoulahad Diop di tonton Amadou Fall Nayde ak comité électoral bi xale yi kenn ku ci ma ci tudd dinaa tooñ wax ndaxte yéen ñëpp kenn ku ne am seen fay yéen yàlla na leen yàlla fayal boppam ni ngeen bëggee président Macky Sall mu ne ma leen koo fay Macky Sall mënu leen koo fay yàlla mi am fay yàlla na ko fayal lépp ay yiw nag ci barki Serigne Touba léegi nag dimanche incha allah bu ngeen képp ku ñu war a jox ndaxin ak mbaxal ak puuj paaj jox nañ nga war koo mbaxalee puuj paaj ko fépp élection yi. waaw. ci gile ngoon sax ak ci bile daje ki nga xam ne moom moo di pap Amadou Sarr directeur bu DER nag ànd na ak soxna Faat Bintou Pouy ñëw ngir jëmbal téeméeri millions yi nga xam ne ni jot na ko financé ni ki démb ci mbooleem gox-goxaan yi nga xam nekk nañ ci dëkk bu sell bi Touba ak ak jigéen ñi nga xam ne ni financé nañ ci te ci benn xaaj ak seen ci yi nga xam ne ca la ñu bokk moom Pape Amadou Sarr yëkkati kàddu si suba dañ doon def euh, cérémonie remise de financement cent million de francs fa fii si Touba si Sancani soxna si ne duñu ñibbi te jaaruñu fi waxtaan ak waa Ndindi et maa ngi wax tamit ni si weer yi passé am na fi jigéen ñoo xamante ne déjà jot nañ seen financement dugal nañ fi lu toll cinquante million si Ndindi et bu soobee la fii avril ba deuxième financement bu commencé dinañ dolliwaat lu toll 30 ba cinquante million bu soobee yàlla ginnaaw kàddu yi Pape Amadou Sarr yooyu li ki nga xam ne moom moo di docteur Sylla nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di sage yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk li nga xam ne moom moo di zone 2 bu Ndindi yëkkati na ay kàddu daal di fësal li nga xamante ne nii moom la ñu war a def ngoonu fukk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ngi daal di faat ki nga xam ne moom moo di seen candidat bi di Macky Sall ginnaaw bi soxna Faat Bintou Pouye nag yëkkati na ay kàddu na mu ko daan defee wàcc ko benn yoon di fësal li nga xamante ne nii noonu la ñu war a def waaye tam anam bi nga xam ne nii noonu la ñu war a mën a voté ba bulletin yi du niil waaye naka la ñu mën a jàppalee ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall mu yeggale ñaar ñaareelu mandaam bi nga xam ne jàpp na ni suñu ko defee jigéen ñi nga xam ne seen financement dafa xaw a des ñoom ñëpp daañu leen financé waaye nag euh, fàttewul benn yoon daal di woo nga xam ne moo di naataangoom bii di soxna maam xari Mbàkke mi nga xam ne invité d'honneur la foofu nga xam ne moom moo di ci scène bi sur le plan de la discipline ak sur le plan du travail Ndindi zéro faute maa ngi lancé un appel au président de la République ni bu yoree ay ay ñu ne ci dëkk daa di xool di xàmme góor góorgóorlu ak ñi koy sonnal ak ñu koy jàppale ba mën di leen parce que fukki zone ak benn ñoo fi am waaye benn yamu jëg zone ni man xam naa ci dara maay magum parti bi fii zone yëpp xoox lu ma ñetti fan a ngi nii amul zone bu ma fëggul ni ma ni ma deet yàllu naa des zone Ndindy ndax lii de la République que am na Ndindy am na waa Ndindy wane na jàppale na ko. na ngeen fexe leen a jóg centre de votam demal identifié ko bu dimanche nga jubali fa dem voté. dem yi sa kër te li ci def ñu bàyyi koog suñu borom yal nañu yàlla may ndam ci barke Serigne Touba. yaaree suñu sang suñu borom kër bi toog di soxna maam xari mi nga xamante ne ñaayu xare la Maka Bally ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax dala jox sa wàccuwaay sa déplacement bi kontaan nañ ci bu baax yal na la yàlla fay liggéey bi ñu liggéey. sañ-sañ li nga ko. ci tëjtale nag ki nga xam ne moo di coordinateur zone bi di El Hadj Ndiaye programme yëkkati na ay kàddu di wax liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ñu ngi koy liggéey di campagne boo xam ne nii battre nañu ko ci anam ba mu gën a mucc ay ci zone de jamono ji nag li ñuy xaar rek moom mooy ay résultats yu favorable jëm ci ki nga xam ne moo di président Macky Sall ngir mu gagné li nga xam ne moom moo di élection yi ci dëkk bu sell bi di